àndandoo leen sama gaañi àndandoo leen àndandoo liggéey naa tànge la cim réew àndandoo leen sama gaañi àndandoo leen liggéey naa tànge cim réew cey sama bopp koñ bi cey bopp koñ bi ba ma juddoo ba tey maag bopp koñ bi gerte caaf rek ak gerte suukar ak gerte kemb waaye lu sotti am borom fu ma nekk rek ñu fekk ma fa bëgg ma fat ma ne yow santal yàlla ah. sa moomee ku aaya wal eh, eh. sa yàlla ndax def lu baax ba réew mi di ko roy sant yàlla la waaye nag mi géej la de da jox sa moromu tànk yaa nga may tooñ ma provoqué dama bëgg nga yi ñam sa njaayum ak sa njaayu salaat moomu ak sa kaani salaat ku la dul tooñ bu ko tooñ du provoqué yow njaayum salade meeg pompiteer yaa ko gis yow dong yaa ko gis te yaa ko wax te xaar ma xaar nag fii ba suba ba dara lax fi ah. yaa ngi nii di jaay turukuna bii nga xam ne yaa ko ci lextaan xam nga ni lii ay waay dërëm sama lox day xasan subaak tey dégg ah. naan dërëm nga ko wokk la ah? waaye nag defal naa ko wokk bi day am kii bu ma ko wokkee bu lu ñëw dañuy bokkoo de loolu benn bi ba ko tey yam ci li nga moom boole duñu rek te ma dégg jàmm de ah, nga dégg jàmm gerte gaa ngi. gerte gaa ngi. waaw yow man papa doo dem. Eh, eh. namm naa la. waaye ñoom fii rek ñu bàyyi fii ah. tamit. yow dam yee bii nga bàyyi fii yow tamit nawet bi bu tawtee loo ñuy wax. waaye nag dam yi du jël. xanaa ci njaay mi papa. da ngeen dul jël congé. yéen seen njaay yi da ngeen am wutal. waa njaay mi te ci togg ndogu. dam ya daa war a jël congé nag. Ah. dëgg dëgg mbaa ngeen di am pour leen def. ma ne ba si yow tamit war ngaa mën a toog noonu war a jël dam ya. wuy ma wuy ma ràcc benn tànk bi. waa lii. ah lii nag lan la war nga cee wax fii rek laa amee. Hmm, ah, li li li li kor dong la. aywa gerte gaa ngi. mag mi toll ni yéen di dàq. mbuus téeméer mbuus ah. fukk mbuus ñaar fukk. mango ji yëpp benn ñaar fukk la. kafe Touba gaa ngi. bu ko waxut diñ ko joxoñ daa war a jël conseil gerte gaa ngi. ndey ndey. ci wax nii rek saa yu ñu xëyee nii rek di xuloo ak ñun pour lan. <laughs> de. yaa ngoog. maa ngi ni sama xarit. naka mbir yi dégg naa laa gis tam. ça va yàlla bu baax. waaye wuyu ma. Ah. amoo connaissance ci loxo buy connaissance. ah waaw wax nga dëgg day sama loxo bi day xasan. bu dee jigéen la de. Ah. boo nee nii ba pare nii ngay def. Eh. waaye bu dee góor. Ah. boo nee nii nii ngay def. mbaa la ma ca yaakaaroon kun du dem. du dem. fu gën a ah, nooy rek fii katama ci jaaxal foofu nooy na teema koo def ci pooj déedéet foofu <laughs> ah, baax na waa kii du mbay waa dërëm <laughs> eh, mbay man a Moodu Moodu maa ngi lay dégg léegi di a ah. ngay wax ci waxi loxo yu xasan waaw sa loxo bi daal day xasan gerte gaa ngi yow gaa ngi xanaa kii daal bu ñu wokkal ma day xasan moom bi waaw ma daan dégg ni ku ñu wokkal bu amee xaas bi da ngeen koy bokkoo kon bàyyi ma wokkal ko saa bopp ah déet kaay kaay suba ba tey ñu dama Moodu du ma ko def lii kenn mësu ngi ko ñaari te dugg dam yow ma ne defal ndànk toogal rek ñun eh! kem maire lam sal asaka ci weeru doon eh, da ko génne nag man 32 dans naa ko jox asaka ah. yow koo yab lam sal point wuy ma eh. bul fàtte am nga si bor 200 francs ma ko ah. fay si wuy ma da ngaa war a bàyyi bii kilo dërëm ah waaye Mbaye mais kontaan ci yow maa gën a kontaan ci yow naka njaay bi waaye bi la lamsal wax dëgg la na jël na na woor nag ci weer koor gi nag jël ko conseil ko ba wut de bii ah. sama journée moo a kon kontaan naa ci yow génn asaka ah yow nag mm. dërëm yaay dee ko génn dégg loolu amul ah. Ah, naa la na ngeen def yaa ngi nii waaye yow daal doo ma may ñaar daal di dugg dem nag Euh. ci suba ba léegi jaayu ma dara ñeent fukki dërëm. waaw voilà. moom man tey fu may jëlee dépense bi. ba suba yow. waaw waaw waaw. gerte gaa gi. am na téeméer am na fukk am na ñaar fukk. moo dërëm ah. mi gi de. daa war a jël naaj bi tàngee rek dañ cay dellu. ah loo taxit waaye nag nday nanu waxtaan nday nday dafa ah. mel ni client yi yi ngay def fii te bokku ci moo tax client yi kenn ñëwul. mooy lan wayaan ah. bi. man ba ma jógee kër ga bàyyi ma fa dara benn dépense amul. ah man nag yaakaaroon naa ne yaakaaroon naa nag jëli a 18. waaw man di fa bàyyi ñaar téeméer daa la dugg ndey ndax nee nañu bu daan joxe juróomi téeméer ay doomi ndey may waxtaan kii damaa bëgg gars yi di ñëw fii yor seen 1000 francs yi bëgg a dugg si nga kar leen sàmbay mbayaan ko duñu mën a jënd catu naa la yàgg na kuf ma yow it kuf ma la génn mbaam kuf ma la waaye tasa góor yi eh, eh, dëgg ma yàq ci koor lañu nekk nag yéen déedéet def leen daal ah, waaye ak gi lekke ma ta benn client mu lay si fii waaye nay ah, nag naa commencé jaay fii may leen ma dërëm may leen ma may leen ma waaw ma ne yow boo demee ministère des finances ku lay financé yow gerte gaa ngi ah jënd ah, looy wuti ministère des finances. ah moo gën toog fii di dem yéen a. man xam nga luy sama problème. man bi may dëkk fii damaa yaakaare woon am ba seen kër de seen xel a dal de. waaw baaxul na ah, dara a ngi da seen xel dalagul. yee. en tout man daal ma leen mën a wax mooy. man sama affaire daa tëgg a téembe moom. ça pousse pas pousse pousse ba moo paan. ñaari pono yëpp. Ah. dafa handicapé. ah moo tax may dëkk fii rek kal fi. yow ñu kal ko fii de lii baaxul yaa ngi sonn. déet waxuma baaxul de a dal. ah xel yi dal dalul de waaye nag eh, ah. kii de moom ku ko topp sax. man de li dara laa ci wax tuddee. laa ilaaha ku ne laajte faali ngi. xam nga monsieur Bore. sama waa gi sama waa gi dama ngi ci waaye gàccee nga ci. boo amee sa waay ko dama bàyyi ko mu dem. taala bambi ñaam ak siini bambi ñaam borom ngaañax borom kaas tuuti ba borom yàlla nee na yonent bi nee na waaye nag Sénégal nag fekke leen nii kuy dem Makka te fekk Kaaba ga waaw doo dëpp xanaa wàññeeku yaa fi dajale loolu yëpp wax ko sama géer a ngi nii waaw may ma dama laa namoon de may ma loolu yëpp nga wax ko man <laughs> bàyyi wax naa la nga bàyyi foofu nga may tagge fi nga may tagge bokku ma fa kon kay koy tagg ni da nga koy tagg fa mu bokk bàyyi li ngay tagg te bokku ma fa benn ñaar bàyyi xoole gu ngand di nga xoole ba ñu tekk sa jël sa njaay mii de gay ma sira ñaay gay ma sira isa jeey fa maa fekke la police ba nii laa mel jarul dem jàkka jarul taal di waaj. boo dee def ta ta bay lu mën a ñu xam. léegi eh, Nioro. xam nga yow avancé xam nga lu tax avancé woo. nday lamsal man ba ma la xamee ba léegi nday lamsal lañ lay wax. ñëwal ci nday ragaju wala nday buqee. waaye lamsal rek. am damaa demoon fii ñu baatil ma ma ma ma baatil la. laay laay la laa. Ah. mbir mi njaabum golo la. déjà kumata njaab. doo cokkas ci ku njaabum golo la. tàccu neen lii jar machine taal. xoolal lii ku di neexul. jëlal da nga cee bokkul. mbaa nga bëgg a bokk kenn boole wala sa fii sama ennemi. ba mu xasan waaye maa ngi ci la dañ maa baddil ma baddil la. jërëjëf am téel. ay waay Sokala na waay. Eh, ma kat. am jëlal ñeenti ñeenti junni ma jël. gis dañu waaw jëlal rek baa ma ak ñaari junni bi man dinaa mën a lijjanti te dool bàyyi njaayum gerte njaayum gerte baaxul teg ko ci yow teg ko ci e bu ko yóbbu tegal bu eh, bu ko yóbbu lii bàyyi ma ma yóbbu ko kër ga bàyyi ma jëlal ñeenti junni yi jërëjëf kontaan naa waaye kaay ma wax la waaw eh. maa ngi lay sant di gërëm njaboot gi ñoo ko bokk waaw jeeg ba sama jeega waaw joxal ma ko gerte gi boo demee benn bi hmm. joxal ma ko xale yi waaw am kemb day baax ci yow gerte kemb gii day baax ci yow. Ah, kon allo mbuus bi am mbuus bi def ko ci jërëjëf. waaw yàlla dina nëw mbaa mu yónnee. Hmm, yàlla yónnee na. yàlla ñëw na ci suba ba tey ñeent fukki dërëm laa ah. jaay 200 francs. yéen ñii. Ah. suba ba tey ñeent fukki dërëm. sarax leen te yàlla tax rek boo ko mënee da nga fàtte. nii danañ ma ko joxe woon fu ne. dañoo fàtte. bokk leen ko bal ba dugg naa bal ba a bopp koñ dootuñu ko bàyyi bopp koñ dootuñu ko bàyyi jëlal suuy doom ta xoolal ne fii la safe fii la neexe koy riig ganima jal bu yàlla jal boo ko mu jal jali boo ko mu jal jali ten koo jal ay la laa ilaa eh. defal nak nag day ah. ma ne fekk nag wuy leen ma tey ne ñu ndogoon leen ma fii ma ne ñoo ngi dem de fu ngeen def leen ndàkk nu séddooli séddoolee séddoo ñaari junni yi hmm. li ñu yoree daa matul sax lii xam nga matul nu dara bopp koñ dootuñu ko bàyyi ba bàyyil papa yow hmm. xam ngeen yéen samay xarit ngeen waaw mosuma lekk dara bàyyi leen waaw damaa am yërmande ci yéen am cofeel ci yéen waaye da ngeen xaw a mu leen a tey. waaw hmm. léegi am jël leen sa junni delloo ma junni. ñoom amoon nañ ñaari junni dinañ ko fàtte mbaa. demagul maa ko jëlaat sa bët bàyyi ko rek. yéen tamit nag. maa ngi sedd rek ñaari. toog ci bopp koñ bi rek di dal. léegi am maa ngi sedd meew mi. waaw doo yokk meew mi sax. meew la nu ku nekk jël benn muy gën a jóg. léegi li ci des nag yéen tamit nag. bay naa leen bi. teg naa ci arôme yi am. jeex na di nday léegi su ko defee maa ngi woon séddale li fi des. boutique bee dana am ndaw. dóor ci jaasi ñu mbuus ko rek. waaw bee la dana am mbuus yu ndaw. kii tamit ah. ñu ci jaasi mbuus ko rek. waaw kay bu dee def. wane nag day dëgg dëgg dëgg dëgg dañuy wax rek waaye gis nga. Eh, eh. bokk koñ bii. daraa ngi ci de. wallaay wallaay. Eh? bu ñëwul xam ñu lépp. ñun daal di ngi ci bopp